transparence ñu wax ni rek loolu ne ñëpp xam ni emploi des jeunes yi nga xam ni moom la président Macky Sall dugal eh bien emploi des jeunes yooyu transparence totale lay doon nit ki moo ñëw bindu boppam wala mu dem ci plateforme yi mais amul damay defar sama liste yow jëlal ma ñii jëlal ma kii déet loolu amul te préfet yi ñoo koy coordonné te plateforme yi ak lieu yi nga xam ne fa ñuy dem mooy les sous en attendant que espace yi nga xam ne mooy les smart services mën a yemb ñaareel bi mooy wax ngeen industrialisation ñu fàttali rek ni président Macky Sall daf ko boole ci li nga xam ni mooy bi mbas mu ñëwee ci PAP 2A li nga xamante ni mooy li ñu war a def ci souveraineté mooy mbay mi càmm gi napp gi numérique ak industrialisation pour que mu mën a doon ay bërëb yoo xam ne nit ñi dañ fa mën a dem di xëy agropole yi loolu moo leen tax a jóg industrie pharmaceutique yi muy ubbi loolu moo leen tax tax a jóg Sénégal dina dem sax ba di defar ñàkk yoo xamante ni ngir xeex mbask ñi la et ce une première en Afrique de l'Ouest beneen bi ci des mooy dañu wax ni Sénégal digganteem ak bi mbirum Palestine bi amee ak Israël taxawaayam matul man leen aha kay taxawaayam mat na sëkk taxawaay président Macky Sall mat na sëkk ndax bi mbir mi amee génn na bataaxal boo xam ni lam ca wax lu leer la dafa wax ni mu ngi ñaan ñu wéer ngànnaay yi mi ngi ñaan ñaari dëkk yi ñu waxtaan mu ngi ñaan ñu respecter état Palestine respecter état Israël te loolu ci la mas nekk di wax depuis mu toog ci nguur gi te sax ña ko jiitu woon ñoom it loolu ci loolu lañu ma mas nekk ndax Sénégal moo présidé comité ALCOD bi nga xamante ni mooy défendre les intérêts inaliénables du peuple palestinien beneen bi mooy dañu wax ni Sénégal fa ku ko posé les questions ni ci suñu mbokk moomu mu koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram muy suñu concitoyen monsieur Lamine Diack que Sénégal dafa jël xaalis fay déedéet loolu amul Sénégal jëlul benn xaalis pour joxe ko pour que Lamine Diack suñu mbokk moomu mën a ñëw Sénégal mu ngi topp rek mi ngi mi ngi fekk nag ni Sénégal wax dëgg yàlla ah citoyen bu mu am bitim réew euh, ak lu mu manti xew war na koo mën a jàppale mais pour le cas d'espèce moom loolu ñuy wax naan dañu génne koppar yu bare joxe loolu amul beneen bi mooy ci wàllu découpage administratif ma fàttali ni sabab bi nga xam ni moom lañuy liggéey président Macky bi mu demee Kër Massar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ci taw bu metti ak mbënn mu metti mu amoon foofu la jël ñaari dogal benn bi dafa ne Kër Massar dinaa fexe ba jafe-jafe yi ngeen dund ren ci nawet bi bu déwénee du ngeen dund lu toll noonu mu daal di jox ndigal gouvernement am ñu war a liggéey ci projet bu mag boo xam ne fukki milliards ak juróom la ci teg pour que ñu liggéey ko liggéey boobu nag ci xayma normalement fukki weer ak ñaar la war a dure ba fukki weer fukki weer ba fukki weer ak ñaar waaw xam nga liggéey bu war a durer fukki weer ba fukki weer ak ñaar nga tàmbali ko janvier kon nag ci xayma decembre lu mu teel teel teel décembre la waroon pare mais bu dee boobu naa bi dina jaar ci diggante bi moo tax président Macky Sall sant ñu. ci entreprise yi ñu koy liggéey ñu waxtaan ak ñoom ñu teg leen tuuti pression pour que ñu comprendre ni war na pare avant nawet bi pare boobu nag ça veut pas dire pare à cent pour cent mais pare ci wàllu ouvrage yi nga xam ni ñooy gàttanu ndox mi jàllale ko ci yoon stocké ko ci ay bassin yóbbu ko ci marigot de mbaaw sans mu yàqal kenn ca ñu dëkk ca mbaaw loolu nag ñu ngi ci entreprise yaa ngi liggéey te bu ngeen seetloo weer wu dee bu ne dinaa ànd ak yéen ànd ak gouverneur ànd ak préfet yi ànd ak maire yi ànd ak délégué de quartier yi ñu xayma liggéey boobu ba fi may wax nii suñu xel dal na ndax liggéey baa ngi aw yoon même dimanche sax entreprise yi dañuy liggéey te trente 31 mais bii incha allah daañu àndaat ak yéen ñu demaat xool liggéey boobu fan la ci tollu mais am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. beneen décision bu mu jël mooy nit waa Kër Massar na leen defal département te loolu waa Kër Massar yàgg laaj le président bu lu bees départementalisation boobu nag daf koo sant ñi koy saytu ci gouvernement am ñaari ministère ak ñaari ministre muy ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur ak ministre des collectivités territoriales ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires loolu liggéey nañ ci en tant que ministre, en tant que gouvernement. Pas en tant que Oumar Gueye maire de Sangalkam dafa tombé rek tey jii keneen mënoon na toog di ci wax ku dul Oumar Gueye bu fekkante ni président Macky Sall kooku la jëloon wóolu ko dénk ko lim ma dénk. loolu liggéey nañ ci Kër Massar wante Kër Massar département bi dafa war a laal Pikine laal Tëngéej mu war doon loo xam ni nag day amal njariñ waa Kër Masaar te waa Kër Masaar xam nañu ni loolu amal na leen njariñ te bu ñu nee Kër Masaar dañ naan yëmbal bu ñu naan yëmbal yëmbal nord yëmbal sud wax Malika wax Kër Masaar wax une partie de Jaxaay wante comme ñi ngi war a laal Tëngéej yéen ñépp xam ngeen ni am na lu xewoon ca gox boobu ci suñu gox boobu en 2011 ma dem si yàlla Malick Ba ñàkk ci bakkanam c'était le 30 mai 2011 président Macky Sall nag nitu kàddu la bu jëlee engagement incha allah dina ko def moo tax waxoon na ca jamono yooyu nii te yéen ñépp xam ngeen ni ak seen aqulaay taala la ñu defoon sàngal kam jaarul yoon que ma nekk maire ba que ma mbalee nekk maire ba jaaduwul nañ ko dagge woon daf ko découpage boo xam ne c'était politique jël Sangalkam daf ko ñetti dëkk rek daf ko commune te mu doonoon communauté rurale boo xam ne cent quatre-vingt-quinze kilomètres carrés la woon ñu ñu def ko un kilomètre carré loolu jàdduwul woon président nag ak gouvernement am liggéey ci ak les autorités administratives ak population yi parce que gis nga liggéey bi fukki at nit ñaa ngi koy xaar depuis ba léegi du lu bees ñëpp ñëpp xamoon nañ ni bis a ngi ñëw lii président Macky Sall waxoon dina ko def muy correction donc foofu découpage amu fa ndax découpage bi moom 2011 lañ ko defoon daf ko bu bon léegi découpage boobu la ñu corriger pour def ay entité yoo xam ni c'est viable compétitive et porteuse de développement durable ni ko acte 3 de la décentralisation waxee donc loolu moo fa am du leneen li ëpp ci askan wi loolu mën naa leen ko garantir ñu ngi ko doon xaar te d'accord nañu ci loolu du ñàkk nag ñu ci d'accordul vous savez démocratie moom fokk am ñu ci d'accord fokk am ñu ci d'accordul mais li li ñu war a def rek mooy éviter les injustices corriger li nga xamante ni baaxul woon ci ay jamono beneen laaj bi nga xam ni laaj nañ ko mooy euh, ci li nga xam ni mooy commune bu nekk fii di Mermoz Sacré-Cœur maire bi jël kàddu wax ne état bi da koy xeex waaye yéen xam ngeen ni loolu bu ngeen ko déggoon sax war ngeen xam ne mënul ne y aucune raison aucune pour que gouvernement bu président Macky Sall naan commune bi yow yaa ngi bokk ci majorité bi yow opposition nga bokk dañuy wàññi say kii am na commune yoo xam ni ñu bokkul ci majorité ñoo ko yor mais ñoo ëpp fuuf leen di état bi di transféré loolu mën naa leen jox toutes les données toutes les données parce que nag données yi am nañ ko man sama ministère document budgétaire ak compte administratif commune yëpp ci Sénégal ak département yi mu ngi ci sama bureau fii ma toog nii directrice collectivité territoriale mi ngi fii moo koy centraliser defal ma synthèse toujours ma jot ko gouverneur yeeg préfet yi di ñu ko yónni li ma leen mën a wax ci mbir moomu mooy la ñu wax ni dañoo jël seen yëf wàññi ko loolu amul li am mooy équité maanaam président Macky Sall dafa indi lu bees loo xam ni ay la yowén maire yépp ci Sénégal léegi rafetlu nañ ko mooy la SEL la contribution économique local d'ailleurs maire yu bare bu ñuy wax ak man dañ naan dañ naan ma waa xorom si kañ lay ñëw la SEL la contribution économique locale dafa permettre toutes les collectivités ñu am ci patante yi léegi moo xam am nga usine wala amoo usine boo amee usine wala industrie valeur locative moom kenn du ko laal yaa koy jël mais valeur ajoutée bi dañ koy def ci benn caisse avec des critère de répartition équitable et transparent ñu jox ko communes yi ci trois guichets benn bi mooy guichet allocation minimale benn bi mooy guichet stabilisation benn bi mooy guichet équité territoriale te loolu boo ko seetloo ci document yi nga xam ni moom lañu yor laa wax de la commune ba waroon a am ma ngi koy am ci mu leer léeg-léeg sax mu am loo xam ni ëpp na moom la mu yaakaaroon ni moom lay am mooy li ma leen wax ci tubaab léegi liiral leen ko ci ay documents yu leer yoo xam ni euh, man inventé wu ma ko loolu mooy li nga xam ni moom moo am ci seen wàllu tom parce que wax nañu bu wax taxe ordure ménagère mais taxe ordure ménagère 2019 ñoom 10 millions la ñu pré prévoir te te recouvré nañ 14 millions. domaine occupation du kii. yaakaaroon la ñu am recouvrer nañ deux cent soixante dix sept patente bi soixante millions la ñu yaakaaroon la ñuy am am nañ cent quarante six millions huit cent et cetera sel bi même sel bi sel prévoir ñu woon dara mais am nañ cinquante cinq millions sel VL trente millions trois cent moom la ñu jot te ren jii xoolee seen seen seen budget deux mille vingt et un cent la ñu prévoir ñoom mais dinañ jot cent onze millions ëpp sax li ñu prévoir donc. gisuma foo xam ni mën nañoo wax ni wax dëgg yàlla état bi dafa jël pour xeex tel commune loolu mënul am pourquoi parce que président Macky Sall du intervenir ci dotation yi bi ma nekkee ministre collectivité collectivités ba tey président Macky Sall mosuma wax nu ñuy séddale fonds de dotation fonds d'équipement parce que dafa am ay formule yoo xam ni moom dañuy jël données yi nga xam ni dañuy am ci commune bi dugal rek mu génne montant bi man bokk naa ci commune yi nga xam ni ñoo gën a néew la ci région de Dakar yu am ci dotation yi parce que ma commune noonu nee naa leen bis bu ma waree am fukk bu leen ma jox fukk ak benn mais bu leen ma jox it juróom-ñeent li ma war a am kon ñëpp loolu la ñu war a am loolu mooy les les fonds yu ñu distribué te mën nañ ko publier je pense même qu'on doit publier n'est-ce les dotations de manière transparente fonds de dotation fonds d'équipement sel les arrêtés la nga xam ni man ak sama nattangoo muy ministre Abdoulaye Daouda Diallo ñoo koy signé mën na leen ko jox boon ko soxla et vous regardez comment c'est distribué donc dans la manière la plus transparente donc loolu muy wax euh, euh, amul di leen gërëm rek di leen sant di leen remercier di leen wax ni exercice bii lu am solo la que fukki fan ak juróom yu ne ñu daje ak ak ak yéen ndax yéen am ngeen rôle bu am solo parce que si tasxatu xibaar ngeen wante dañ leen di waaw jox nag xibaar yi nga xamante ni mooy dëgg yi ngeen mën koo tas donc je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour le gouvernement face à la presse.